réew mi nekk un pays laïque laïcité xam nga mooy lan mooy respecter croyance yëpp loolu mooy laïcité laïcité c'est pas l'absence de croyance ñu bari xamuñu lan mooy laïcité laïcité du réew moo xam ne amul ngëm-ngëm laïcité mooy réew moo xam ne dañuy nangu ngëm-ngëm yëpp ok maintenant bu ñu waxee loolu ba pare je pense que gouvernement bi nii mu mujjee bu ko commencé woon aussi coow du am. la à dire le fait dem wax ak monseigneur Ndiaye. ni ñu ko waxee ci kii bi wax ak moom trouver solution ci tu vois quoi donc dafa am réew aussi des fois dénoncer yoru ko des fois wax aussi xool respecter les formes baax na ci rafetal comme da nga wax ne dañoo nekk di dundandoo rafetal bi wàññi ci wàññi ci woon dara est-ce que xam nga baax li ma la bëgg a wax cela dit li may wax rek mooy épisode bi nañ ko tëj rapidement mu jeex parce que Sénégal nag ñun ñëpp même famille bi lañ. mais nan lañ koy tëjee. on va vers une non non non ñu koy tëjee lu leer. nañ on va vers une ah, ah, rentrée des ah, classes. le premier ministre a pris position. Mhm. sur un épisode boo xam ne amoon na fi en deux mille dix neuf. Mhm. ñu seddaloon ko gérer ko mhm. euh, en toute euh, diplomatie. privé catholique bi ñoom nee nañu am nañu seeni règle. bari na baat yu yëkkateeku ne. nit ku yor école. moom moo fa moo fay mën na fa imposer forme d'enseignement am l'essentiel c'est que bu mu bu mu bu mu nekk euh, euh, nu mu mu mu indi bu mu déstabiliser ordre public na nekk en conformité entre les lois et règlements du pays. waaw mais les lois et règlements du pays terewuñu kenn dans ce pays nga sol voile may mun a li ma bëgg a wax lu yomb la euh, épisode bu mel nii. dañ ko war a jeexal mu jeex ci réew mi xajul ci réew mi xam nga lu tax fii ku fi jullit am nga mbokk chrétien yow woon na ma ne sa famille yow am na ay chrétien am na ay musulman sama xaaj bi kay da ngay xaaj. famille yëpp noonu la xoolal Sénégal. <laughs> non man da ngay defal dama ko naan waaw ku am ku am ku am ku am kuy jullit am nga xaritu chrétien dem na ba nit ñi sëyante yaa beaucoup de couple yoo xam ne kii jullit la kii chrétien la donc jullit ak chrétien fii Sénégal benn famille la. je pense que li ñu war a wax mooy xool ni ñu def ba épisode bi ñu passé ko te je pense que le premier ministre def yónni Guirassy mu dem wax ak ki nga xam ne moo jiite église bi loolu lu baax la parce que dafa am yoo xam ne aussi commentaire ko sax amul sens loo xam ni lu lu ñëpp bokk la par contre scandale bi premier ministre va de dénoncer justement du loolu le vrai scandale xam nga mooy lan. Hmm. lu tax mënuñoo def école publique bu baax dans ce pays ba nga xam ne nit ñi ils sont obligés di jël seeni doom di leen yóbbu dans l'enseignement privé catholique loolu mooy wax bi c'est ça le débat li war a scandaliser Ousmane Sonko c'est pas que ñii di tere voile pour man loolu c'est un épiphénomène ça n'a rien à voir la contradiction principal est-ce que dégg nga li may wax yaay premier ministre yéen a ñëw ci nguur gi damay def yitte def solo taxaw teem defalaat école publique ba kenn dootul soxlaati yóbbu sa doom école privée loolu mooy tontu bi parce que le vrai scandale c'est pas c'est pas ñu naan xale bu mu sol valde le vrai scandale c'est qu'il n'y a plus d'école publique dans ce pays te chaque année ñun la bon enseignement bi on a mii xaw ma ñaata milliards te y a pas d'école publique. pourtant may mën a yàggul noonu yàggul noonu man bi ñuy man man man ba bi may am bac ñi doon dem école privée. mooy ñi nga xam ne dañ doon échoué dans le public. ay nilaar lañ leen jàppee woon. est-ce que dégg nga wax ba léegi nag pour nga mën a jàng waxuma jàng jàng cest à que léegi nit ñi yóbbuwuñ seen doom ci école privée parce que dañ leen bëgg a yóbbu de c'est que boo boo demul ci école privée doo jàng parce que public amatul jàng c'est ça le problème c'est-à-dire que lii li ñu ci war a jàngee pour man Ousmane Sonko li mu ci war a jàngee lenn rek la. tey am na école publique bi nu nu doon demee nit ñi du ñu soxla école privée catholique ba école privée catholique naan nañ indi voile ak bu ñu indi voile. dañu waxante dëgg. mais bul stigmatiser aussi. stigmatisé pour lan. non nit ñi du ñu soxla école privée catholique yóbbu sa doom école privée catholique. aussi non, mais, c'est un bu école publique bu baax amee lu baax li ma wax li may wax je l'assume Sénégal bu amoon école privée publique bu baax nit ñi duñ jël seen i doom di ko yóbbu école privée catholique wala laïque. c'est ça la réalité. mais école privée catholique c'est une euh, institution. Sénégal bi mu amee mais laïcité lañ fay doxal. Sénégal bi mu amee école publique bu baax déglu baax li ma la wax may man Sénégal bi mu amee école publique bu baax ñi daan dem école privée dañ la daan compter wala boog du woon obligation option la woon maanaam mu neex la rek nga jël sa doom dugal naa la privé mais ñëpp ci public bi lañ doon jàngee dañu wante dëgg donc le vrai problème Ousmane Sonko li mu war a régler. lim ci war a jànge man ci yëf yi ci épisode bi mooy lan def farata def sunna def fulla def fayda taxaw tem ba réew mi amaat école publique bu baax. mais gis nga bu non may mu ne li wax nii loolu mooy débat bi le vrai scandale du ay non le voile parce que le vrai scandale mooy y a pas d' école publique dans ce pays. Ça, mais justement dans ce sillage là. <laughs> voilà euh, bi lettre ouverte monseigneur euh, André Latir Ndiaye def euh, nan nga ko jàngate ni mu détonné. waaw euh, xam nga man vraiment question bi bëgguma cee dugg lu bari may mun a ndax lu jëm ci nation maanaam ci xeet lu jëm ci diine dafa sensible xam nga li te comme mënuma cee wax li ma xalaat lépp je préfère bañ ci sori xamalem la man daal li may suggérer mooy nu ñu mën a def ba comme ni ko monseigneur Abbé Ndiaye Latyr Ndiaye waxee boobu ñu waxtaan waxtaan biirub néeg ci lettre bi am parce que nee na dafa am yoo xam de waxtaanu biirum néeg la nañ ko waxtaanee waxtaanu biirub néeg ñu trouver solution balaa rentrée bi bu ko defee lépp rentré dans l'ordre parce que nag Euh, gars yi dañuy faral di wax naan Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar wax nañ dëkk te nettali xuloo xuloo la. mais nan lañ mën a retrouver ah, nettali xuloo euh, xuloo la. la voie du dialogue. la voie de la cohésion euh, après. qu'une personnalité non négligeable du gouvernement du Sénégal ait pris position, qu'une personnalité non négligeable de l'Église catholique ait pris position, nan la ñuy retrouver une cohésion une homogénéité euh, dans le discours. après cette ni koy retrouver kay tàmbali na xam nga bi loolu amee. Girassi yi dem na seeti ki nga xam ni moo jiite église du Sénégal waxtaan nañu mais foofu rek la yëf mën a jaare waxtaan waxtaanu biirum nekk xool nu ñuy def ba euh, ñaari position yi ñu dendale leen ñu dépasser épisode bi parce que nag aussi. man moom ku may xaati may commentaire diggante ay jullit ak ay chrétien Sénégal moom <laughs> man nga du ma ko def parce que jàpp naa ni loolu du sama rôle man sama rôle mooy euh, nu ma mën a waxee loo xam ne nii parce que ki tooñ ak ki tooñul man intéressé wu ma parce que nett bi xuloo xuloo la te diggante chrétiens yi ak musulmans yi ci Sénégal jàmm rek moo xaj seen diggante. mais est-ce que la visite de Guirassy comme dialogue am na. est-ce que est-ce qu'elle date du mois d'août en tout cas daal gis naa Guirassy mu photo ak Monseigneur oui c'est une image qui a tourné voilà mais est-ce que cette visite date du mois pas plutôt du mois de juillet waa bu fekkee loolu la xam nga bu fekkee loolu la na fa Guirassy delluwaat yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi pour wax la moom li ko jàmm jaraloon ñëw na di dugg Màkka Xuraysh yi arrêté ko Xudaybiya ni ko doo fi dugg mënoon naa xeex mënoon naa forcé te boobu ñi mu ñi mu àndal ñëpp ñi ngi am yaakaar dem Màkka ndeysaan bëgg dem ci Kaaba gi bëgg jaam ji yàlla ñu arrêté leen mu metti lool ci ay nitam mais dafa toog négocier waxtaan signé benn traité traité Xudaybiya ak Xuraysh yi donc daal nañu wax gars yi na ko doo ñëw ren déglu baax la ma la gars yi na ko doo mais posé ko condition yi dul jeex mu nangu ñu dem ba war a signer traité bi alim bi doon bind traité bind Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Xureyshi ni nii traité bi yonent bi du ko signé ci tur boobu parce que ñoom reconnaître woon Muhammad ibn Abdallah lañu xam cooli ni kur ali na Ali ni déedéet kenn du Mouhamed rasulullah parce que moom la yàlla yónni moom lañuy ñuy signé traité bi yonent bi daf ni Ali fan lañ bind Mouhamed rasulullah mu won ko ko mënu ko effacé ko bindal Mouhamed ibn Abdallah ndax bëgg jaam sëñ Tuubaa mu baax mi nee na bu amee lu gën jàmm xaw ma ko fii xaw ma fuñ ko xaw ma xaw ma xaw ma xaw xaw ma xaw ma ko fañ jëm lañuy waxtaan nañ waxtaan ci jàmm régler problème bi c'est tout ça ne sert à rien d'analyser et xanaa xamoon ne même lettre bii nga gis ni waa ji bind na ko lettre bi xëy na tàng na waaw kàddu yi dëgër na mais même lettre bi sax ci biir njariñ a ngi ci njëriñ non parce que am na yu wax yoo xam ne nii yu am solo la ci réew am na yu wax yoo xam ne nag moom yokk xar mi karaw la maanaam wax dàq ginaar waxaale sa soxla la c'est la réalité mais am na yu wax yoo xam ne ni njariñ la ci réew donc faut pas toujours prendre les choses du mauvais côté li am solo mooy ginaar bu fekkee ni juillet la fa demoon na fa delluwaat. mais si les ara ñu waxtaan. si les institutions du privé catholique campent ci seen position. Hmm. Euh, si le gouvernement aussi euh, campait sur ses positions xalaat nga ne solution mën nañ ko am d'ici